yàlla mu di borom njëltal ñu ne la yonent bi wala sax ñu daan lay fal ne la dangaa ma ci xol te man ngay waxal ne ko yaakaar ni mën yàlla faw na ngay dugal ne la danga bëri bàkkaar waaye di yow man di ñëw li ngay tegoo di yow lu ci mën a doon man dégg ba baax na tabarakallah waaw waaw loolu ca taxmis la sirri xabixun li dox fil xalbi wal badani loolu du ma mën a yooyu ngay wax waaw dafa am yoo xam ne bu koy wax du ma a sirri xabirun dox fil xalbi wal badan wa xad amaata fu aadi mahdadan loolu du ma mën a astafirullah min sam'i wa min basari wa min zamiri wa min kalimi boppam taxul muy wax waaye astafirullah ma la xasabahu wa ma taxannati tayru fil arsaani bi naxam pour ñun ñëpp la ndax oiseaux yi dañoo bari ci planète bi au matin ci cari garab yi ci branche garab yi ñuy mélodie loolu moo waral an naxamaat al loolu moo waral mélodie divine na ngeen baaxe artistes yi ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi ñu mag ñi ak ñu ndaw ñi baaxe leen leen taalif yi ndax mu leen di fóot seeni xol ndax mu yóbbu leen àjjana ku tëdd kat fu ne wax na fa ni ba ci tarjumaani mawaahibu mu wax yàlla ni ko xasida gi def ko jigéeni àjjana ak gone àjjana di ko woyantoo ma wax leen fii ci Demba Ndiaye ni leen Mawaahibu Naafi' fii Madaa'ihi Shaafi'in nii ñu koy woyee fu nekk murid yeeg ñëpp nii ñu koy woyee nekk way nit la way nit la way fii la way adduna dinaa leen mos indi indil waa àjjana nañ koy woyee ndax ku tedd ki moo ni ko wajjahalha mimma tattaganna hal hurul ayn wal wildaan fil janna na ko jigéen àjjana yooyu woyee dinaa leen ko mos a indil ni ma leen indilee woy jinne rek waaye eggaguñ ci maa dàq woy ñëpp dama koy nëbb ci espace ak temps rek ak solfège suprême laa wax de sol solfège yii waxuma doore mi fa la si loolu taxul may wax bu bu ju du mbaa ii bi mbaa an ban jan dan mbaa ab ajji add mbaa un gun dun dun mbaa ee bee jeedee loolu tax may wax ëh aw e, as ëh at ay ak al am an as ah af ad ak ar as at as ah as az ah ash moo tax ma yoon wasalaam boobu nit la moom baax na tabaarakallaa tabaarakallaa waaw boobu moom fii la

فوزني الله من الشيطان وهب Il y a longtemps le pressement fut la prédiction, mais ces déclarations jadis annoncées arrivent à point. D'autres sont en attente plus quiconque. Ces prédictions, quelle que la durée, se réaliseront. Walfajri walayali sont les propos du Seigneur. Hmm? Fajri yana biha que Bamba déclara. L'hymne national chanté au Sénégal. Hmm. un jour sera changé car nous wow. allons durer. Si vous saviez les vertus des paroles de Bamba, vous vous dresseriez résolument à remuer la pierre rose. Quiconque bénéficiait d'audience dans le passé, qui oppressé par le colon en se l'appropriant hier, tels fut les rapports entre lui et l'acteur spirituel. Récompensant les uns, menaçant les autres, les convoquant, la peur des hommes religieux au colon date d'il y a longtemps. fois du nom de Mbacké ou du nom de Cissé. de Maram dans la mêlée Bamba et Touré. jërëjëf jërëjëf nu juma jim mim hmm? juma naka jaañ ah jaañ de cinq la jaañ sept la mooy alxayri ah juma itam kat juma itam sept la de Hmm? waaw asamaan yi di juróom-ñaar la suuf yi di juróom-ñaar muy fukk ak ñeent amin nanga ma ko joxal soixante-dix mille francs CFA dégg baax na juma tàllal ma ñaanal yaa ci Ahmadou Bamba tabarakallah noonu laa ko bëggee ci ñëpp xam naa waaw gis ngeen jamono ngi ñëw ci kanam nit dina waxu taalif ma ni jox leen ko nangam mu xam ah déet lu ma leen wax noté leen ba mu egsi xam nga si Serigne Sylla Male donte Cheikh Béthio nga ca dëgg sax waaye man Serigne Sylla Cheikh Béthio laay wax xam naa bu ma déggee bay moom mu mere ma ma ko mës a jox benn enveloppe ay dollars waaye bu mu ne ah ba jaaxal <laughs> ah de la wax xam nga ah jooju ma remplacé merci <laughs> Jabel Thioune ma nga ci dëgg daf naa jox enveloppe bi mu fermé xaw ma lu ca nekk ma jox ko keneen mu ne ma ah xanaa xamoo lu ci nekk ma ne ko eh, ubbiwu ma ko waaye yooyu yëpp ku tedd ki rek moo ko man wax naa leen ni dafa fu ma jëm ak yéen ba ba ngeen dalal seen xel gis ngeen fu xéwal nekk ci àdduna bi fu xéwal nekk ci àdduna bi te dagan moo ko moom li muy pour ñëpp moo tax mu ko fay bàyyi du jël yëfi ma sàmba di jox ma dem du jël yëfi faatu di jox xawa ku ne li nga moom la lay bàyyee la lay jox kooku du kenn te kenn du moom ni mu manee ak ni mu koy defee moom doo nga ko man yàlla bu ko neexoon ñëpp am ma min dabatin fil ardi illa ala llahi rizquha kenn génn ci benn créature génn ci waaye moo tëralee noonu ci nun war a fax naa ban doomum fooxa ban niveau yi tolloowul wërsëg yi tolloowul gis ngeen suñu jëmm yi sax tolloowul melokaan yi nuroowul waaye nag dafa bëgg ñu respecter kenn ku nekk li nga bëggal sa bopp bëggal ko sa morom loolu lañu ko tedd ki boole ci benn suuf mu waral cirkul jawaahir fi axbaari sarair radiallahu anhu Serigne Saliou jox ma recueil ba mu nekk 650 pages nga ma dee ko faral di yër ma dem di jëre xale yi ci gorot yi yóbbu leen ca Lansar su mi leen benn bis ñoom ñëpp ñu def yaramu neen ñu wàññi leen ñuy 650 muy 650 page recueil ba silkul jawahir waaye fii axbaari sarair axbaari sarair yooyu nag moo tàmbali waaw jërëjëf def ñu ngi leen di sant bu baax bu yàlla mi amal lépp moo amal weeru safar hmm. ci lay laajee ba hmm. ci lay laajee di leen wax bambaay kan hmm. ba nun ba alif yaa teer nun mooy tund mooy ka demoon moom rek àndoon ak nasaraan yi wéttali koo yàlla ak yeneen kon wax naa tey mooy kan ànd ak ahlu badrin ci baatin ak alxuraan tey dékku nag ya di ko muñ kon jundi naa moom mooy kan waa jërëjëf léegi nag doyal naa ci taalif bi moom vraiment doyal naa tey moom fa tabaarakallaa xanaa rek ñu ñëw ci anniversaire bi muy tey 5 septembre 5 mool al mooy alxayri la biir pourquoi ahmadou mu mujj mi man maay ahmadou mu mujj mi lan moo tax ma jël 5 septembre ni mooy sama date de naissance ndax même sama yaay avant muy faatu xamatul weer xamatul at bis ba nag moom waxuma ko waaye man xam naa ko man bis bu ma juddoo yomal xamis la cinquième jour de la semaine parce que sur le plan spirituel dimanche ngay wax ni lundi ni mardi ni mercredi ni jeudi man alxames sama yaay waxuma ko maa xam ne alxames laa judd xamaluñ ma weer wa nag xamaluñ ma at ma ñoom ñoo ko xamoon fàtte nañu loolu kat ma yóbbu cinq septembre mën naa mu tombe mën naa am du tombe mais bu tombewul itam ku tedd ki da koy def mu tombe parce que yiw wa ca nekk ca 5 septembre ca Baqara ak ca bureau gouverneur yiw wa ca nekk oh ak Imran te kenn ñemewu koo jege 33 minutes te kenn ñemewu koo jege loolu moo tax oh Sénégal umpale nañ ko umpale nañ ko waaye waaw nañ ma wuy si ci Touba d'abord rek sama ñàkk dem tuubaa démb bokkut ak ñàkk dem ya weesu de bii daa am lu ko waral te du ma ko wax